ko def moom la Macky Sall bëgg a def ci réew mooy dafa bëgg a teg benn nit boo xamante ni à tout moment na dem 2024 kooku ja moom mu ñëw nekk président assemblée nationale ba pare ñëw sensibiliser waatam pendant 6 mois kooku démissionné réew mi du réew mu ñu donnoo réew mi du réew moo xamante ni dañ jox ay làkkat à tout moment pour ñu koy donnante réew mi réewu Sénégal la dañoo respecté suñuy loi ak suñuy consort kon askan yépp xam ni ñoo ngi fi nekk dignement pour la nañu ñàkkandoo lépp moo gën maanaam ñuy wote lii nii bu fekkente nag maanaam dem nañ ñoom ban bëgg wote article 29 28 ak 29 ci règlement intérieur bi ngir ñu bëgg koo jënd article 87 man damay lànk ak fu ma mën di bokk d'accord ma ci loolu parce que askan moo ma gënal nag sama ngor moo ma gënal aussi mais li ñu moom parce léegi tey jii ñun dañoo d'accord si dialogue bi ni nan modifié li nga xam mooy code électoral bi mais kon loolu ay ay ay ay yoo xam ne Macky Sall moo ko dugal ci biir ngir ka bëgg maanaam fexe ba nga xamante ni à tout moment bu ko neex tas ensemble loolu yaakaar naa duñ ko d'accord si réew moo xam am na démocratie jërëjëf merci beaucoup. Ah, de souci je excuse euh, Abdoulaye Seck mu nekkoon réaction honorable député euh, on essaye d'avancer pour essayer d'avoir euh,